wasalaatu wasalaamu ala asrafi alambiyaai walmursalin sayidina wa maulana muhammadin alamin wa ala alihi wa saxbihi ajmain laqin lisaani waxlulan minhu luqad wajcalhu zaakiran wa shaakiran abad waj'al kalaami raashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida mbokk yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di leen ndokkeel di leen balu àq di leen baal ñaan suñu borom bi subhaanahu wa taala mu boole ñu jéggal ni ñu ko baaxo ànd ak yéen ci ay bis jot ci suñu jataayu xam-xam yi ci lañuy dellu siwaat rek di ko àndaat ak yéen bi sof suñu bindub tey fi nga xam ne foofu lañ taxawoon rek ci suñu bind bi weesu te ñu tollu ba tey ci euh, bunt bi nga xam ne moom la sëriñ bi radiyallahu anhu jagleel ñi nga xam ne ñooy malaaka yi ci ana naka lañ leen war a gëme waaye itam mu ñuy leeral ci biir bunt boobu malaaka yooyu nga xam ne dañ leen a war gëm ana ñan lañ ci war a gëm ci ak teqale ñoo xam ne dañoo war a xam euh, seeni e, tur waaye xam itam kenn ku ci ne mission bi nga xam ne moom la la suñu borom bi subhanahu wa taala di e, doxloo kon bunt boobu lool lañu sëriñ bi radiyallahu di leeral mooy li aji ci malaaka yi ak kenn ku ci ne wazifa bi nga xam ne moom la suñu borom bi subhanahu wa euh, jox nga war koo doxal ñi ngi taxawoon ci bunt boobu nag ci ñaari malaaka yi nga xam ne ñoom ñooy dikkal nit ki saa bu faatoo ba nekk ci biir bàmmeelam euh, wala mu faatoo ci yeneen anam yoo xam ne mëneesu koo rob te leeral nañ nañ ko ci bind bi weesu ñaari malaaka yooyee li nga xam ne mooy seeni melokaan ak la nga xam ne moo aju ci ñaari malaaka yooyee ci seenu raglu loolu lépp doon nañ ko jàngat ci bind bi weesu nga xam ne ñi ngi taxawoon ci bayit bi nga xam ne ci la sëriñ bi radiyallahu anhu di wax ne wa kullu xalqin yastaizu minhuma wa minhuma aazana rabbu sama ñaari malaaka yi nga xam ne ñoom ñooy dikkal nit ki ci biir bàmmeel ginnaaw bu faatoo di ko laaj mooy ñaari malaaka yi nga xam ne euh, nit ñëpp maanaam lépp luy mbindeefal suñu borom subhanahu wa taala day muslu ci ñoom daal di ñaan suñu borom subhanahu taala yal nañu musal ci ñaari malaaka yooyu kon ci bind boobu ci lañu taxawoon ñuy sof suñu bindu tey rek ba tey di wax bi di waxaat ne wastasni mooy nanga seete mim ca ñi nga xam ne yus aluuna deef na leen laaj al anbiya mooy eh, nabiyu ya mooy yonent ya kazaniki noonu al malaikatu malaaka yi fii maa ca ña nga xam ne ruwiya fii la nga xam ne ruwiya soloof na ko sëriñ bi radiyallahu anhu mi ngi tolloon ci eh, malaaka yi ñi nga xam ne dañ leen di laaj mu ne nag na nga settee ci ñi nga xam ne bu ñu faatoo malaaka yi dañ leen di laaj yonente yi ana yi euh, kenn du leen laaj ci biir bàmmeel ñaari malaaka yi nga xam ne ñooy munkar ak nakiir wax nañ ne yonente yi duñ leen laaj maanaam bokkuñu ci ñi ñuy laaj bokk na ci ñi nga xam ne malaaka yooyu duñ leen laaj mooy yonente yi alayhimu salaam waaye itam bokk na ci malaaka yi malaaka yi seen jëmmi bopp itam ñaari malaaka yi nga xam ne ñoom ñoo ñoom la suñ boroom wakiil ñuy war a ji faatu ji duñu laaj malaaka yi kon bokk na ci ñi ñi nga xam ne malaaka yi leen laaj ba tey mooy malaaka yi ci seen jëmmi bopp ñaari malaaka yi nga xam ne ñoo yor oh, ñoo yor fonction boobu di ko doxal ñoom duñu laaj malaaka yi wa ak ñi nga xam ne dañoo faatu ci toolub xare bokk na ci ñi nga xam ne malaaka yi duñ leen laaj suñu faatoo mooy koo xam ne dafa shahid ku shahid mooy koo xam ne dafa faatu ci toolu xarab lislaam maanaam koo xam ne da doon xeex ngir taxawal dëgg taxawal li nga xam ne mooy diine taxawal kalimatullahi al-ulya mooy yàlla bu màgg bi di xeex ba ñu rey ko ci loolu kooku itam wax nañ ne bokk na ci ñi nga xam ne deefu leen laaj ci biir bàmmeel kon képp koo xam ne dafa shahid euh, da doon xeex ci yoonu yàlla ba faatu ca ku mel noonu deefu ko laaj ci biir bàmmeel wa kazaniki noonu as-siddiquuna way dëggu ñi ñi nga xam ne maanaam dañoo dëggu tey dëggal nga xam ne lépp loo xam ne moom lañu moom la suñu borom subhanahu wa taala wax rek dëggal nañ ko tey dëggu nañ ci euh, di ko jëf maanaam ñi nga xam ne dañoo dëggu way dëggu ñi ñoom tamit wax nañ ne suñu bokk na ci ñi nga xam ne duñ leen laaj ci biir bàmmeel way way dëggu ñi ñaari malaaka yi nga xam ne dañuy laaj képp ko faatu way dëggu te dëggal suñu borom bi subhanahu wa taala te duñu wax lu dul dëgg ñooñu itam wax nañ ne kenn du leen laaj ci biir bàmmeel wa minhum bokk na ci ña nga xam ne dañ leen di seetee ci ñi ñuy laaj ci biir bàmmeel al ablahu mooy li ñu tudde am nalle am nàlle bu ñu ko waxee mooy koo xam ne dafa dese maanaam am xelam dafa des ma summal majnuunu topp aji dofe bokk na ci ñi nga xam ne duñ leen laaj ci biir bàmmeel tamit mooy li ñuy tudde am nàlle mooy koo xam ne am xelam dafa des waaye itam koo xam ne am xelam dafa dem mu di ab dof li ñuy ab dof akum nàlle ñooñu ñëpp bokk nañ ci ñi nga xam ne settee nañ leen ci ñi ñuy laaj ci biir bàmmeel bokk na ci ñi nga xam ne sëriñ bi radiyallahu anhu lim na leen ci bunt bii ne defu leen laaj ci biir bàmmeel mooy wa man qara al ixlaasa mooy ku jàng sooratul ixlaas muy xul huwallahu ahad fil maradi ci af feebar jiim ñetti yoon wa maatate mu faatu fiihi ca feebar boobe xaalahu wax na ko zawul ulum waroom xam-xam ya sëriñ bi radiyallahu anhu nee na bokk na ci ñi nga xam ne seetee nañ leen ci ñi ñuy laaj ci biir bàmmeel mooy képp koo xam ne feebar na te feebar bi nga xam ne ci la fee moom la feebar da ci daa faatu ci feebar boobu waaye ci biir feebar boobu itam dafa jàng sooratul ixlaas muy xul wallahu ahad ñetti yoon ci biir feebar boobu ba pare ci feebar boobu ci la faatu koo xam ne feebar ci biir feebar bi nga jàng ci sooratul ixlaas muy xul wallahu ahad ñetti yoon euh, na nga xam ne bokk nga ci ñi nga xam ne deefu leen laaj ci biir bàmmeel ndax sooratul ixlaas dafa am doole lool ndax saar la woo xam ne léppam tawxid la maanaam léppam wéetal yàlla la waaye léppam sellal yàlla la waaye léppam setal yàlla ci lépp loo xam ne bokk day day nuru bokkaale la kon képp koo xam ne euh, jàng nga ko ci biir feebar ba pare nga faatu ci feebar boobu sëriñ bi radiyallahu anhu ne na kooku boroom xam-xam yi wax nañ ne bokk na ci ñi nga xam ne seete nañ leen ci ñi nga xam ne def na leen laaj ci biir bàmmeel maanaam bu faatoo kenn du ko laaj ci biir bàmmeel niki noonu itam bokk na ci ñi nga xam ne deefu leen laaj ci biir bàmmeel li sëriñ bi di wax ne waman mu tabaraka waman fi zamani taaoni mawtuhu alan bokk na ci ñi nga xam ne seete nañ leen ci ñi ñiy laaj ci biir bàmmeel mooy koo xam ne dafa taqoo saaru tabaraka di ko jàng fu mu toll koo xam ne dafa taqoo saaru tabaraka di ko jàng fu mu toll kooku wax nañ ne bu faatoo kenn du ko laaj ci biir bàmmeel niki noonu itam koo xam ne dafa faatu ci jamonoy mbas koo xam ne dafa faatu ci jamonoy mbas maanaam dafa am feebar bu xew bu am lu mel ni euh, corona masalan loolu feebar la bu xewoon bu fi am wala lu mel ni Ebola wala genre feebar yoo xam ne taawun la maanaam mbas la dafa jékki-jékki tasaaroo képp koo xam ne itam faatu nga ci eh, genre tawat yu demee noonu wax nañ ne ñooñu kenn du leen laaj ci biir bàmmeel wa minhum bokk na ca ba tey ci ñi nga xam ne déefu leen laaj ci biir bàmmeel man ka nga xam ne maata faatu na yawmul yawmal jumaati bisub ajjuma aw laylatan wala guddik ajjuma laha ñeel na ko rawahul xashaa boro na ko rawaahu soloo na ko alxasha woy ragal ñu yàlla kon itam bokk na ci ñi nga xam ne deefu leen laaj ci biir bàmmeel mooy koo xam ne dafa faatu bisub ajjuma wala guddik ajjuma mooy bisub ajjuma ci boppam wala guddik ajjuma mooy alxames ci guddi wax nañ ne ñaari jamono yooyu itam képp koo xam ne daf cee faatu Euh, bu boobaa malaaka yi nga xam ne ñooy laaj ci biir bàmmeel deefu la deefuñ la laaj maanaam duñ la laaj ci biir bàmmeel moo tax sëriñ bi ne wa minhum bokk na ci ñi nga xam ne settee nañ leen ci ñiy laaj ci biir bàmmeel te deefu leen laaj ci biir bàmmeel man ka nga xam ne maata faatu na yawmal jumaati bisub aljuma aw laylatan wa laha wala guddik aljuma rawaahu solo na ko alxasha way ragal ne yàlla tuddaloon na la malaaka yi kenn ku ci ne li nga xam ne mooy eh, li nga xam ne moom la ko suñu borom subhanahu wa di jëfloo mu desoon ci malaaka yooyu itam eh, yeneen malaaka yoo xam ne am nañ ay eh, wazifa maanaam yoo xam ne moom la leen suñu borom subhanahu wa di jëfloo ku ci mel ni Malik ak li ki ñuy moo tax mu ne Malikuha Malik seen alxaasinu mooy aji garde mooy aji wattu lin niiraani ñeel sawara ridwanuha euh, seenum ridwan alxaazinu mooy aji garde lil jinaani ñeel euh, aljana fi nag yaakaar naa li euh, am na ci mool yoo xam ne ridwaanu naa la ko sëriñ bi radiyallahu anhu defe mooy aji garde lil jinaani ñeel aljana kon malik seen la wax maanaam mi nga xam ne mooy mooy garde sawara sëriñ bi radiyallahu anhu daf ñu ko soril bëgguñu koo moomale moo tax mu ne Malik Siin de moom mooy Malik ma nga xam ne mooy garde sawara waaye nag ridwaanu naa sunum ridwaan nag alxaazinu mooy aji garde mooy aji wattu lil jinaani ñeel aljana wa xayruha ak ñeneen ñu dul ñoo ñu mu la tuddal ci malaaka yi wajaba war na al imaanu gëm bihim ci ñoom laakin waaye alal ijmaali ci ak bëbësal rek duna maysihim ci lu nga leen di euh, ràññetle ne na malaaka yooyu mu la tuddal yépp kenn ku ci ne dafa war ñu gëm leen ak ñi nga xam ne tudd leen waaye ñi nga xam ne tudd leen nag moom dafa war ñu gëm leen rek ci ak bëbësal maanaam gëm leen xam ne ay malaaka la ñoo xam ne suñu boroom subhanahu wa moo leen bind def leen ay malaaka waaye nag du war ñu teqale leen comme ni ñu teqale malaaka yi nga xam ne ñoom lañ doon lim euh, te suñu borom subhanahu wa taala xamal ñu ne dañ leen a war a gëm ci at teqale euh, ndax kenn ku ci ne mission bi nga xam ne moom la ko suñu borom subhanahu wa taala jox euh, mu koy doxal dañ koo war a xam kon ñooñu ñooy malaaka yi nga xam ne ñi ñooy malaaka yi nga xam ne kenn ku ci ne war nañ koo gëm war a xam wasifa bi nga xam ne maanaam fonction bi nga xam ne moom la ko suñu borom subhanahu wa taala jox euh, mu koy doxal waaye yeneen malaaka yi ci des itam dañ leen a war a gëm comme ni ñu gëmee malaaka yi waaye nag du yell du war ñuy gëstu kenn ku ci ne euh, lan moo tax suñ borom bind la wala ci euh, yan wasifa maanaam yan fonction la suñu borom subhanahu wa taala jox yooyu moom du war ci yeneen malaaka yi waaye nag dana war ñu gëm leen comme ni nga xam ne noonu lañ gëmee malaaka yi kon day mel ni bunt boobu foofu la euh, daanoo ñu ngi tub bu baax tey jégglu di wax ne in uridu illa al islah ma stataatu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala